man la Mbool Mbay di artiste comédien dëkk Louga ñu may wax bàcc xari ñu tuddee ma El Hadji Mbool Seck di bëj géwal Louga ma bokk ci famille kër Seex Saajay Mbay bu Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waaw man la Mbay xamba dekk montagne nord di nek ci théâtre bi té di ñaan yalla tamit euh sama ndort bi ma ci am yalla bu yalla tass yaakar tour bi Fatou Kiné mbeng la ñu gën ko xam ci bourguewal ak lan mo wara jëlé la ci am fofu waaw la moom mom ah bu dee xel li la def lepp lan mo ko wara gën ci biir xam nga li théâtre moy li ñi def ni rek ma yow théâtre la parce que ñogi théâtre donc li am solo moy li am solo mooy ñii théâtre xam ñoom fu ñuy teg seen tànk fan la ci théâtre boobu ñuy def parce que théâtre du da ngay ñëw rek ni man artiste laa rek dama war a du def théâtre te amuloo benn formation bi nga mën a jaar yow pour am benn xalaat yi pour mën a liggéey ci théâtre bon donc théâtre suñ dee wax théâtre sax la ñu wax parce que léegi théâtre amatul tel téléfilm la gars yi di def. théâtre ah bëgg ko rek nekk xale. Euh, am ci yaakar gis ni nit ñi ni ci liggéey te xamna ni bu fekkee jom ëpp ñu mako ko tamit cadre euh, bëgg dara gënuñu ñu mako bëgg mais tamit yalla day def moyen day am mais amaguma moyen boobu mais amna ndort ni suma ci nekké te gëm-gëm bi ci dugal gëm na ni dina dina ci am dara dal. théâtre lima ci mëna wax bari na art dal liñ ci mëna wax bari na man doom bourgui wala gëm na art Yagna na ci ar presque ar bima ma duggu dugg ba maa ngi def sem de suma fatali ko kon yagna na di ñaanalit ñi nga xamni ni ñun ño tax ñu xam ar ba xam ci tay ji lu bari lo xamni ne si wax deug yalla fuñ ci taxaw meun nañ ci def lo xamni ne si ci suñu njàmbur gi ñu dëkk wax deug yalla ku nu xam-xam rek njàmbur fi la fek ar fi la fek bax yaakar na ni ay 2016 yoy bi may jógee Dakar la yalla def ben programme bu amoon koñ ba léegi yàlla def tonton Mbool mi ñu nekkoon ci programme boobu mu ñëw fekk xale yi di def théâtre foofu léegi nag après yàlla def ni mu mu nekk loo xam ne du mu koo bëggoon léegi loolu moo ma ci dugal yàlla def ñi ma nekkaloon lépp daanaka ñu bëri dañoo beddoo ko woon xam nga dem nekk ci leneen man nag yàlla def ni ma nekk ci moom nekk ci moom ba tey. waaw xam nga dañuy jaawale kii def théâtre ak kii def comédie ngir jàllale promotion moom ci boppam pour jàllale boppam. parce que su fekkente ne dangay ngay da nga ne nga da nga bëgg a def théâtre da ngay xool liy yokk emploi bi ci Sénégal pour ndóol mën fee jóge ba nga jël ñi ko mën nga dajale leen ñuy mbooloo ku ne mën a faj sa soxla waajur su fekkee da ngaa bëgg a def théâtre mais soo demee individuellement am sa benn portable de théâtre sànni ko ci audio yi di dem loolu yomb na loolu théâtre loolu comédie la théâtre xam-xam la nit ki da nga koy jàng mu nekk sa bopp nga di ko def mais du looy for ci mbedd déedéet théâtre kenn du ko for ci mbedd. différence bi bari na bari gi mu bari mooy maanaam boo dee seet théâtre léegi ah, démb la dàqoon jamono yi ñu toll nii liñ ciy def ci théâtre daanaka boo bëggee dégg-dégg démb démb démb daal mooy mooy théâtre ndax lan daan def démb ku ne di ca gis sa bopp léegi kenn defatu ko léegi aar bi bari na ku ne yaa ngi koy jëlee defee ko nu la neex te na nga koy defee nekkul. te am na ci ñoo xam ne si ñi ngi ci di ci di ci liggéey di ci def lu baax di ci wax lu baax te kenn jàppalewu leen soo bëggee dëgg-dëgg daal ñi ñi nga xam ne si comme genre ñoom tonton Mbool Mbay mii nga xam ne sii wax dëgg yàlla yàgg na ci aar ñoom tonton Ngaari Mbay Maajoor Jang fa laa jaar sama nijaay la artiste la doom buur géwél la wax dëgg yàlla ñoo nu tette ci aar ba nu àgg fii ñu àgg kon dañoo war a jàppale ñun jeune talent Louga yi dimbali nu aar àgg fa war a àgg ndax ñun njàmbur njaay ñii wax dëgg yàlla. ku ñëw njàmbur rek li ma la waxoon léegi rek xam ne aar filewul lee ñaay lu nu nit di jaay rek waroon ko mën a jënd. kon léegi soo ko théâtre ba léegi am na valeur parce que am valeur moo tax su heure bi jotee kenn ku ne daw seeti la nga soxla ci te la ngay seet cest dire kenn ku nekk ak li nga valoriser loolu moo fi am mais théâtre bu njëkk pour nit ñi li daan yeete ba léegi mi ngi yeete c'est-à-dire façon yeetin wii moo baax moo bokkul te yeetin wu njëkk wa gëm wii danoo bàyyi li moom jéggaani yëfi jàmbur dikk ni dañuy def téléfilm mais théâtre nu ñun téléfilm la ñuy def mooy dañuy xool ci tubaab bi li mu liggéey ñu jël loolu muy liggéey ñu roy ko ay oto di mbëkkante ñu yor fetal yor paaka yor leneen mais yow miy théâtre génne paaka di ko jëm nit yaa ngi jàngal xale bi lay seetaan nu ñuy reyee nit mais c'est kon léegi ñun dañuy li tubaab li ñuy bañ ci tubaab bi ñoo ngi koy def. théâtre bi léegi booy xool daanaka yëfi tubaab la ak yëfu ni ko waxee mooy. Euh, américains yi xaw ma daal li ñu leen toppandoo léegi de théâtre Sénégal léegi dafa dafa dafa mel ne lu xaw a suux parce que tax mu xaw a suux léegi tel lu wa seetaan comme genre film la léegi defatuñ théâtre comme yi ñoom ma Makhoury Gueye doon dafa ak yooyu da nga si daan gis nga gis ci sa bopp seetaan nga xam ne carrément ñii am na tànk yoo xamante ni tey naroon nga ko jël mais ñii génne nañ la ci tey mais tey théâtre bi nga baal ma ñii ñu ngi si def loo xamante xale yi ku ci ku ci jóg loolu ngay jéem a rêve loolu doxul. parce que te tënk ci pis ay pistolet ay paaka affaire yooy noonu loo xam ne affaire violence lay doon man ci li ma gis parce que xale bi li mu seetaan rek loolu lay jéem a kii parce que li tax ma wax ko man bi ma daan seetaan jamono yu Vandam dama daan génn wala même Tyson bu daan dóor nit sax bu ñëwee su ma dajeeg sama morom dama jéem a essayer loolu comme kon gëm naan théâtre bu jéem a génnee paaka wala affaire yooyu noonu bu ci nekkee day day xale yi ku ci génn tamit loolu lay jéem a xam nga jouer daal loolu amul sens. su ma sañoon dañuy dañuy jege mag ñi. te te te fexe jël xam-xam def ko seen bopp parce que doon comédien neex na di nga siiw di nga am tur mais am na fu muy yem dafa am foo xam ni boo fa àggee mënatoo nekk comédien kenn yow soo comédien bopp ka rek dafa am beneen relève buy ñëw ci sa kaw pour mën a xam moom fu muy jaar ba am lu ëpp li nga am li ci am solo mooy lu waaye di liggéey ci théâtre bi ngay gone nanga fexe ba loo ciy liggéey na la jariñ jariñ say waajur parce que léegi kenn liggéeyatul ci nit rek liggéey rek di xoole rek kay répété rek kaay théâtre rek sol sam bu bu génn ñu ne waajaa ngi nii loolu dafa xew yi loolu dañoo dépassé loolu loolu bi muy xew ak léegi bokkul boobu amur bi la ñu amoon bëgg ko di ko def boole bëgg ci yor suñu njaboot léegi am na nañ amur bi te lu ñu yore suñu njaboot te ñu kon donc faaw nu wut ci dara te waajur yi xale yi lan yaakaar parce que xale yi vraiment ñoom it soo leen gisee coono bi ñuy daj ci théâtre bi foo woo ñu dem. waaw ñoo ngi ciy gis suñu bopp gis suñu bopp bi mooy suñu bëgg-bëgg la gëm nañ ko ba suñu ci woowee ñu wacc suñu yitte yëpp dikk ngir aar bi ndax aar moo nu ñor dañuy ñaan daal dund ba ni ñu ci nekke daal yàlla jàppale nu ci barke Cheikhul Khadim ñu dund ba am ci suñuy teraanga ndax aar moom wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne si yàgg nañ ci lool def ci lu ne te amuñu ci teraanga kon danoo bëgg a nasaxal aar te aar war nu koo nasaxal war nu koo nasaxal ah dafa wara jëm ci kanam. tank acteur théâtre ya nga dund théâtre du dé parce que faaw mom lu fi téggu mënu ñak cest li fi nek kay moy xam nga lu am solo Moy doomu adama bi lepp luy jog di def na doon lo xamni ni sa bo ci di def na ci askan wa nga bok ak gox ba nga bok kenn ku nek gis bopam ma ngi ci gis avancement moy comme manam xamal na mo lu bari numay doxé man sama bop xamal na ma tamit nan lay waxé sama sama nit. te tamit dafa nekk lu nga xamante ni boo ci nekkee da nga war a xam sa valeur yow yaay kan xamal na ma lu bari daal ci ci loo xam ne xaw ma ko woon ci dignité si nit tondombool jàngal na ma loolu. waa ndaw yi nekk ci gannaaw li ma leen di dénk mooy damaa bëgg ñu xam ne aar daal na saxal ko mun a yomb ndax fi leen ko fekk ci sunuy maam ak sunuy maamaat aar daal mooy démb mooy cosaan mooy lépp. ku ci jàpp te yàlla rek tax te bëgg ko daal te bëgg koo saxal jàpp ci te yàlla rek tax mën nga ci am lu kawe sa njort. buñ fi yàlla bàyyee daal ku ne daal li nga bëgg mën ko ci am. ñoo war a xool valeur bi nu am ak lan moo lan moo nu war ci Louga ak lu nu war a servir Louga ñun en tant ak acteur leer yi war a àndee boo nekk ci aar bi di ci yëngu war a mën a xam fi ni teg suñu tànk ñu boole suñu xool yi raxas ko ba mu set seet ku nu neex ci ñun jiital ko te bañ koo fakkatal te moom it mu bañ a yaakaar ne moom moo jiitu maa ngi sant yàlla bu baax nag ah di gërëm aussi waa Louga képp ku yëngu ci wàllu culture wala ngay théâtre mbaa ngay fecc wala ngay way di gërëm aussi waa pencum njàmbur parce que pencum njàmbur moom mooy ñii ñëpp ñëwunu ñi ci nekk bari nañ mais penc bu ñu waxee pencum njàmbur man ma ci kenn ñun ñëpp ku ne da ngaa yeewoo ci kër ñu bokk daje fi di sottante xalaat sama xam-xam ak seen xam-xam la ñuy boole di fexe ba def dara. voilà ñu nekk nag ci préparation euh, tournage benn film bu ñuy tourné mais incha allah bu soobee yàlla ah fas na ni yéenee relève bi fi nekkoon ci Louga ñun daanu fexe ba dekkal ko ca ci la nekk te bu soobee yàlla yàlla dina ko mottali jërëjëf incha allah.